màggalu poroxaan ñu di ci fàttaliku at mu nekk soxna bu Bousso jaaratula waajuru Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul daara Hizbut Tarqiyyah ni mu ko baaxoo defee boole waale ni ci ab liggéeyam njàngum alxuraan ak xasaayid mu bokk sax ci njàng yi nga xamante ni moo gën a dégtu ni ko Pape Assane mi bokk ci ñuy taxawu wàllu jàng alxuraan ak xasida ci direction générale bu Hizbut Tarqiyyah leeral liggéey bii nga fekk ñu koy def muy liggéeyu njàngum xasaayid Euh, lu yàgg la loo xam ne tàmbale nañ ko ak sëriñ bi ndax kenn ku ne xam na euh, ne nekk gi mu fi nekk daanaka jege na weer wala mat na weer wala mu ëpp ko boobu ba léegi itam niñ ko baaxoo àndeek moom ba mu nekkee xalifa ba léegi mooy fépp fu mu jëm wala lépp loo xam ne mu ngi koy def di dundal lislaam dañ koy ànd ak moom ci njàngum xasaayit te loolu ndigal la boo xam ne ci moom la bàyyikoo ba mu bàyyi bàyyikoo tuubaay itam kon ñëw jaar Kaolack ba ni mu agsee poroxaan gi ba ni màggal gi ñëwee ci lu diiru weer bis bu nekk kuréelu isbu tarxiya bàyyi ko na ci daara yi nga xam ne isbu tarxiya am na ko ci biir réew mi moo xam Touba la wala Dakar wala Kaolax wala Njaareem ba ci Ndar foofu yëpp ba ci Mbuur Thiès Tëngéej foofu yëpp bis bu bu yàlla sàkk rek ci euh, weer woowu am na kuréel gu bàyyi ko ci suñu benn daara ñëw fii nga xam ne day jàng ci bëccëg bi jàng ci guddi gi Euh, topp guddi gi dem beneen kuréel fanaan siwaat ci benn guddi gi nga xam ne kon noonu lañ ko topptaloo boobu ba léegi ba ni nga xam ne nag noonu la ñu ci bis bu tedd bi nga xam ne euh, yow gisan ngeen seen bopp ni nga xam ne noonu lañ koy defee loolu itam sañ naa wax ne liggéey bi sax ci suba gi la tàmbalee ndax tey li tàmbalee 9 h ba jëm midi am na kuréel goo xam ne moo ko njëkk ubbi ci mbaaru xasida bi nga xam ne sëriñ bi moo ko defoon diir bu yàgg ngir xasida yi ci biir kër gi biñ demee ba julli taakusaan nag ci lañ génn fii nga xam ne fi lañ nekk muy penc mi ngir njàng mi gën koo yaatal euh, loolu itam niñ ko tëralee euh, dañoo jël ñeenti kuréel yoo xam ne yu daara Hizbut Tarqiyyah la waaye kenn ko ne xam ne itam daara yi nga xam ne ahlu minan la di ay taal bi sëñ Abdou Hakim boole woñu ak ñoom ñu bokk liggéey ci diir bu xaw a yàgg loolu itam kon dañ ko dañoo ànd ak ñoom guddi gi nga xam ne ñoom seen ñetti kuréel ak ñeenti kuréelu Hizbut Tarqiyyah buñ julee tàkkusaan ba léegi ñoom ñooy ànd liggéey boobu loolu itam sëñ Lamine dafa ànd ak njàngum alxuraan ak njàngum durus ndax naka jekk bis yi moom ni koy dundale mooy njàngum yëkkati bi mooy kuréel waaye ci wet gi itam boo geesoo di nga gis foo xam ne alxuraan lañ fay jàng di wàcc ay kaamil ak foo xam ne diwaan yi sëñ Tuubaa bind moom lañu fay durus. njàngum alxuraan mi nag ak xasida yi mi ngi àndaaleeg teewaay bu yaatu ci bokki taalibe yi góor ak jigéen dikk ànd ci tey di ko fekkee noonu it la amee ñu teewal xalif général des mourides sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké ci njiitu sëriñ Cheikh Mbacké mu sëriñ Abdou Latif mi jottali. kàddug sëriñ bi ak i cantam ci liggéey bi te sul yoon bi ñu ñëwee Kaolack li ma njëkk a wax mooy mbaa waa daara ji waaj nañ mbaa xam nañ ni ñooy samay xam nañ ni ñoom laa bëgg àndal liggéey bi ma ne ko ñoom dey mën naa leen waxal na la dolli jaayante nga ci amuñu jenn yitte judul yow amuñu jenn yitte judul ànd ak yow liggéey bi an amuñu na ko ne ma loolu rek laa bëgg mu ne ma kon nag lépp loo xam ne mooy tax seen liggéey boobu yii nañ ko bëggee ñu man ko naa defee yow la jëy sa wàll ci nga koo taxawoo bu ca dara des loolu nag ma bég ca lool ndax yàgg na ñoo boole yàgg na ñoo boole ba ci yoon wi waaye ba ci guddik tay gii nag lépp di gën a yéeme waaw ji fi nekk yor njàng mi matal nañ sëkk lañ leen doon def loo waaye jëwri ñi nekk ca Touba sëriñ Aatu sëriñ Youssou mii yéen ñëpp yéen nga ci Touba nekk fii lu fi war a mate taxawe taxawe ngeen ko ba lu war a ñëw waxtu wu ne dañ ciy am dañ ciy yéeme ci sant parce que man mii war a toppatoo xéewal yi lay nekk xéewal yi fi wàcc damay yéem ba bisub tey njàngum xasida mii nag te mbooloo mu bari di ko teewee àndoon na ak lépp lu koy dundal ni ki wàllu bernde yi nga xam ne guddi gépp amul wenn waxtu wu mu taxaw loolu itam bokk na ci li nga xam ne moo ko gën a yaatal muy sonorisation di rajo yi am solo ci waajtaayu matale ba fu mbooloo mi toll mën a yokk seen mbégte ci xaside yu am solo ak daaj yi nga xam ne kuréelu Hizbut Tarqiyyah ak ahlu minan moom lañu fanaanee jàng diir guddi gi yépp